Eh, jërë ngeen jëf mbokk yi gannaaw ba nu sante suñu borom subhaanahu wa taala julli ji sangam ba di Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam eh, noo ngi ak yéen seen télévision ba Fatihul Bichri la télévision islamique qui est au service de Bakar Khadimou Rassoul eh, mbokk yi tey fii ngeen ñu gis ci pàkk bu tedd bi muy Louga ku tudd Louga tudd taarixu Serigne Touba Khadimou Rassoul pàkk bi ku tudd Louga tudd njabootu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku tudd luga ku tudd Louga ku tudd Louga tudd maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina waaye mu mel na tey eh, taarix dafay am lu muy nettali nag eh, xarajtu yowma sabti min saahin al asar li xidmatil muxtaar fi chahri safar eh, fii nga xamante ni Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul keroog le 12 août 1895 fi la wàcc julli fa rakkam ya fi jëm fan ca convocation bu tedd ba bu nga xamante ne bi nga ko joxe dafa yebal rakam bi tedd ja maam Cheikh Ibrahima Faty Ndamal Daaru mu wuy Serigne Touba le 10 mu bàyyi ko Mbacke Bari le 11 mu jaar jeewal le 12 fekk ko fii ci Louga fii lañ ko waxee ne ko te nga fital jaar mun leen déedéet damay liggéey Rasulullah damay liggéey Rasulullah alayhi salaatu wasalaam damay demaat damay damay damay damay dellusiwaat fii fii la waajee bataaxalam bu rëy boobu di xasidaam googu di asir asiru maal abraar jox ko ca ndar ku ñuy wax sëriñ Modou Mabé def fa ñaar rakk yi waaye fii tey jii nag communauté murit bu ndar bu Louga nu ànd maase di fàtte fàttali ko lan bis bu tedd boobu bi nga xamante ni sëriñ Tuubaa jar na fi teg fii bagage yi yéen ngoon bis bu tedd boobu nga xamante ne nii xéewal la kenn ku ne xam ne sëriñ Tuubaa fu mu wàcc barke wàcc fa fu mu wàcc xéewal wàcc fa fu mu wàcc tawfeex wàcc fa murid nag daal di ne fii mu wàccoon jaaroon ci yoonu njëkk wa doon dem gànnaar bind fi ñeent fukki kaamil ci kanam la daan fi dëkk ak yéen wàcc fi waaje fi jëm dar ca convocation bu rëy bu nga xamante ne nag mooy mooy convocation ba nga xamante ne mooy dimbali jaam ñëpp convocation ba nga xamante bi mu ko wiijee kër la ko si Moussa Ka di wax naan dogoon ko nag demam gi wolof nasaraan te kon billahi ñëpp dem ni daan kon mbokk yi dañ ko ànd ak nu ànd ak yéen ak mbokki taalibe yi tey jii nekk la 11 nu jagleelal ko kan njàmbaram ju tedd ja jagleel ko kan ki nga xamante ni bu doon ak moom yoonu murid nax saay jagleel ko kan Cheikh Rahane Fall Babul Mouridina doomu maam seen dama jaay ja waaye dara jale ko Serigne Cheikh Fall Baye góor jàmbaar Serigne Cheikh Fall Baye góor kenn ku Serigne Touba Serigne Moussa Fatikala di njabootu Serigne Cheikh Fall Baye góor nu war a ànd ak ba njaboot gi nag ci kanam tuuti mbokk yi daan ko ànd ak fii ci Louga. wax na leen ko de la télévision islamique qui est au service de waa kër Xaadimu Rasul du bàyyi fenn fa Sëriñ Tuubaa jar fas nañ si yéen ànd ak yéen moo xam jeewal la moo xam Mbàkke Bari la moo xam Jolof la moo xam euh, get euh, Njaañ moo xam euh, Sànnusi fii ci Louga ba Ndar daan ko àndandoo ak yéen fa Sëriñ Tuubaa teg tànk rek fas nañ ko yéen teg fa tànk wan leen li Sëriñ Tuubaa liggéeyal yéen Tuubaa alayhi salaatu salaam ba san borom anta na yëkkati li mu yëkkati jox ko mu wax ne akramani ikraam man ma shafaan wa kullu ma aradtuhu min ka faal kon ci kanam tuuti ngeen topp ñu jërë ngeen jëf ah, jërë ngeen jëf mbokk yi kon ba tey noo ngi ànd ak yéen fii si Louga di waajtaay bis bu tedd bi nga xamante ni sëriñ bi Xaadimu Rasuul jaaroon na fi wax nañu ko léegi nu fekkoo kenn ci mbokki taalibe yi sëriñ Pape Gueye sëriñ Pape ah, nga bokk ci comité d'organisation bi ah, ngeen di màggal le 12 août 1895 bis bi sëriñ Touba jaaroon lam résumé bi. وإني أعوذ بك وسريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñu ngi nuyu Cheikh Moustapha di siyaar nuyoo bi nag ñu ngi ciy jiital Cheikh Sidil Muxtaar di ci teg Serigne Cheikh Jëmb Fall mi nga xamante ne ni moo fi nekkal maam Cheikh Ibrahima Fall Lam Babil Mouridine bis bi nag dafa nekk bis bu am solo boo xam ne ndamal adduna lépp la ndax le le 10 août 1895 la ceer la la la la Cheikhul Khadim jóge woon baar yi ñëw dajeeg tubaab yi jeewal fanaan fa waa ahlu badrin kiram wàcc fekk ko fa mu jóge foofee ñëw kokki njege isa jeey la 11 bis na nga tey jóge fa ràññaane fa ñëw fii ci gaaru Louga bii naka suba le 12 jëm ndar ci liggéeyam bu tedd bu mu doon liggéeyal jëwriñam jër Rasulullaah salaahu salaam Euh, bis boobu nag mooy waaj a ñëw suba te jii la onze bi ñu jagleel ko maam Cheikh Ibrahima Fall lam babil muridin mi nga xam ni mooy bunt yoon wi te alxuraan dani wa atul bu yootu bi abaabiha way dugg ci nekk da ngay jaar ci bunt ba te yoonu sëñ Bamba bi e, Cheikh Ibrahima def ni bu doon ngoro la boo ngoro gi tasee man la ñuy delloo alal ku am maala may ku ñàkk maala xañ waaw bu doon ab tool it may dig wi loolee nag e, yoonu liggéeyal sëñ Tuubaa àndul ak Cheikh Ibrahima mi ngi mel ne sol tubay amul geeñoo kon moom moo taxal bis bi nag daaw lan ko tàmbali di ko ko tuddee day doog dikk ci xol yi murid yi daaw ñu tàmbali ko sëñ Abdou Fall sëñ Modou Sa Fall mii nga xam ne moo nekk fii di sunum Cheikh Ibra ànd ceeg ñun ren jii nag ñu jagleel ko maam Thierno Ibra Fati ndaamal daaru moom leen jagleel la 12 août bi mais tey jii la 11 nag dañ koo jagleel la sunu sëriñ sunu wëllëre woo xamante ni dafa nekkoon fii de deretu Cheikh Ibra Fall sëñ di sëñ Moussa faati Kala ku ne xam ne sëñ Cheikh baay bu góor ak wàccuwaayam ci kër Cheikh Ibrahima sëñ Modou Moussa Fall di waajuram te danoo wax ni yoonu mu yoonu murit sëñ Modou Moussa Fall taalibe ga newoon ca moom eh, keroog ko bi nga xamante ni nii wàcc na ab liggéey Cheikh Modou Fadal dafa waaxu ba tim ko ni benn cëram musta mooy yàlla ah, te lu jiitu loolu am na shérif bu mas a jógee gànnaar ñëw indi ab kaamil di ko jaay si Cheikhul Khadim di ko laaj itam mbirum Cheikh Ibra Cheikh Ibra keroog bi nga ko booleeg tout tànk ni ko boo demee neel Cheikh Ibra na jox naar bi juróom-ñaar fukki dërëm maanaam Cheikh Ibra dafa woo sëñ Malick Ndiaye ni ko wutal mbalaan lal ko waxtu jot na ngeen jox naar bi juróom-ñaar fukk ba ngeen ba moom xam ni sëñ Tuubaa bokkul ku ma sa yónnee waaye man Cheikh Ibra bokkuma ku ma sa yónnee ci moom eh, keroog ba muy wër ba ni ko ah lii de gis naa fi loo xam ne nii lu ma yéem la waaye dama fay gisul jullee gooro maam Cheikh dana ko doom dama amul ilimaan mun ko fara yi la tiim nag mën naa la ci tànnal ilimaan waaye ki may tànn ilimaan yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom mooy xamal ni benn cërëm mosta musta mooy yàlla dana dund ba faatu benn cërëm du mooy yàlla mun ko ah sëriñ ni ngay tànn ilimaan jëfandikoo xoolal ma ko ci fara yi muy wër ba ci diggaag rek mu téye benn loxo daal ni billahi lasi laa ilaha illa huwa kii du mooy yàlla doon mun sëñ Mourou Moussa Fall keroog ku ku naar boobu téye rek xalifam Cheikh Ibrahima ndekete xalifaam yi la ko maam Cheikh doon loo ci baatin ba mujj mu ne ko sëriñ doy na li ma jàppoon liggéeyal sëñ Bamba ba am ilimaan te julli wu ma loolu rek lay wéy doomam joojee nag doomi s doomi sëñ Cheikh Fall Baye góor jooju nag nga xam ne waajuram dafa dëkkoon fii muy sunu lépp di sunu waajur di sunu lépp moom tam doon jàmbaar nag ci bis bi daf daan dafa fonkoon bis bi daan fi ñëw daan jënd ay keesi biskit ak saaki biskit di ko fi indil baa Diouf bi nga xam ni nekk na fi te nekk ci ay xat-xat yàlla dogal na mu jiitu tey te de des koy feddali looloo tax ren jii ñu jël ko sëñ Moustapha li ko bis bi di ko ci ñaanalaale di ñaan ci darajey maamam ja Cheikh rek mi nga xam moom bis bi yàlla dafa ko ci yoolu ñaan bi mboolem ko fi yàlla faj saajo loolu daal Cheikh Moustapha mooy li nga xam ni mooy saw bis am na nag suñu ay bokk ma ngi nii toog ndax sëñ Sëng Fall ma nga nee toog doomi sëñ Cheikh Fall Baab Góola ak soxna Ñanga Fall ak doomi sëñ Modou Aminta Fall ñoom ñëpp ñu ngi ni teew ñu ngi te si ñu ngi xaar suñu Abdou Fall moom suñu Modou Moussa Fall moom maam Cheikh Fall ak mboolem baay Fall yi ñoom la ñuy xaar nii am na ñuy dikk ne ñoom la ñuy nëgg ni ko di leen xaar Cheikh Moustapha kon bu ñëwee rek ñu wéel mu mel ne sëñ Pape euh, la euh, ngeen wàccaaye Serigne Touba Xaadimu Rasuul lay taale ko maam Cheikh Ibra Fall Baabul Muridiin noonu nga dégg ko digganteem ak euh, naar boobu Chérif boobu ñëwoon doon ci lañ lañ bët mbirum Cheikh Ibra Fall tontu la dafa daal di yëkkatiku mu wax ne Cheikh Ibra xat foxtaari jall Cheikh Ibra xat juustal ma jall Cheikh wasata xaqan lil jalal ibrahima faalu naa mu mel ne kon mënesu la def dara te gisaloo ci maam Cheikh Ibrahima ci kër sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul ndax dafa wax sëñ Tuubaa ko man maa ne ñëpp ma woon ñëpp nan la ba noppi kon du ma moom la Cheikh Moustapha euh, euh, Cheikh Ibra moom ci jëmmi boppam fanweeri dameel ak ñett la doon di toggal borom Tuubaa la jor ngoon la tir ngoon la tir Fall nday moo tax mu nekk dameelu Kajoor waaye dameel Fall lay sant de waaye moom daa jaayoon léppam keroog ba ma ànd ak rakkam ji maam saaliwu fii ci njari waqi fii ñu gar aw say lal tak ak laxas teg aw say teg jël ak xànc lal ko jël say wi teg ci kaw maam Saliou téye fii Cheikh Ibra téye fii ñuy takk say wi xànc gi dagg maam Saliou rëpp loo xam ni Cheikhul Xadim te boobu Cheikh Ibra gisagul Xadimu Rasul maam Cheikh da ko teg loxo ni ko Saliou tur woowu nga wax foo ko déggee munu ko dafa dikk sama xelam wax ko munu ko du ma gisuma ko wax nañ ni gopp rat la yor keroog ñii ni da ko roof ci pàq garab bi ko mu damm ñii ni daf ko bés mu damm mu gàddu ko di seeti Cheikhul Khadim waaye bi mu ñëwee am na dëkk bu mu njëkk yam waxtu nawet la comme nii dëkk ba dafa fekk mu maral gàncax gàncax gi eh, xaw a sonn mu fekk ñu tas kaamilu Alxuraan ci pénc ma di baaw naan mu leen lu xew ñu ni ko dañuy baaw naan mun tekk leen kaamil bi du taw man nag mën naa taw ci darajey ki may seet te gisaguma ko te booba gisagul xaadimu rasul guddi googu dëkk boobu ci ndox lan fanaan ñu xëy suba di ko war mu génn dëkk ba ci la demee tay ba Dakar kër góor gi moor mutti fa mbambi Touré fa la ko sëñ Adama Guèye ak sëñ Makhtar Touré fekk mu ànd ak ñoom keroog ba mu gisee sëñ Makhtar Touré ak sëñ euh, Adama Guèye sëñ Adama turki bi mu jiitaloon Seexul Xadim da ko joxoon bi maam Cheikh ñëwee dañu ko yow doom ki may seet xeet gi da ko koy xeeñ teeg maa jooy sa turki bi nga jiital mu ne ko turki bi ma jiital mënu ma la jaay waaye mbubu mag mi mën naa la koo jaay mu ne ko lu tax nga mën maa jaay mbubu mag mi te mënoo maa jaay turki ni ko lu tax nga mën a jënd turki bi te léegi mënoo jënd mbubu ñaar bi ñu àndee Cheikh Ibrahima Cheikh Ibrahima nee na keroog bi mu àndee ak Adama Gueye wi di taxaw nee jéego bu mu yëkkati kënu tàkk ci aras ñaar ñi mu àndal kenn du ko ci dégg nee na malaayikal muxarrabin yi wàcc ba ci asamaan su jëkk si yore ay xiin di feetu naan ku fa jëkk gën Cheikh Ibra nee na loolu xinu Baye Fall di tëgg nee na foofa kon kenn nekku fa ñu dem ba yàgg ñuy soppi tëgg ma naan bëgg gëm ak jëf ma xam ni bëgg ak gëm ak jëf moo fi may dara nee na bi mu duggee Mbàkke Kajoor nag nee na ñu naan foo yem yaa fa yemale sa bopp nee na itam Seydina Jibril moo ma jàngal ak njébbal ku dul man nag maa la ko jàngal nee na bi ma nee jëpp Mbacke Kajoor nee na Sina Jibril moo ni cëpp sama kanam ak i ak i daraam nee na daal di dindi meeteel gi mu meeteelu Cheikh Ibra nee na kaalag may luus laa yor ma dindi ko nee na mu mox ay daraam nee na ma mox samay sa ma moxu topp ci gannaawam nee na mu sukk waax raam wuti Cheikhul Khadim nee na ma sukk raam wuti Cheikhul Khadim Cheikh Ibra nee na Cheikh Ibra man Seydina Jibril moo ma jàngal ak njëbbal waaye ku man maa la ko jàngal kon ñu xam ni yoon wi kaa ba mu laloo fa fekkoon na fa itam euh, booba sëriñ bi Euh, bi Cheikh Ibrahima ñëwee kër Sëñ waa rek la ne bi Seydina Omar ñëwee kër Yonent bi alayhi salaatu wasalaam la fa xewoon dan daan nodd di ko nëbb waaye keroog ba ñëwee la jolli waaye moom it keroog ba mu ñëwee la mu njëkk a wax mooy dañ leen yéen ku am mel nit bor ku amel nit bor bu nit bu nit ka wàccee koy fay bor bi ñu ni ndonoom mu ni kii moo kii moo doon rasulaay kon ku amee loon bor rasulaay kii nga koy war a fay keroog itam la wax ni yaa ayyuhaa llaziina aamanuu laa tadxuluu buyuuta nabii aaya boobu Cheikh Ibrahima ne ci la xaat fekk na ñuy bokk ak sëriñ bi am néeg di bokk moom lépp waaye keroog ma agsee rek la tas kër gi ñetti kees ni dongay fee sëriñ bi fii jigéen ñi fee ku ñëw di nuyu sëñ Tuubaa ak benn la adoom du nii yoon loola waaye ñetteelu yoon saa yu jógee mox mbagg yi ci sa kaw la jëm bu la nee tëf boo nee këpp bu la nee cas ab cuut bu nee dukk dukk ni la xër fa dali mu ni cëb ñàkk xam bu defee ku tedd ki day muuñ ba jël kaala gi taf ci gimiñ gi daal ni sa sëñ Daaru Asan Asan àndal ak waa ji yeddu ko bu defee suñ daaru asan day téye ci loxob Cheikh Ibra ànd moom ba fee ni ko faal dama ko mënul ni koy defee ne kon dama koy defee ni koy defee waaye faal boo bawul nii ñëpp daan mokk jërëjëf faal jërëjëf faal eh, kon faal eh, boo bawul ñëpp daan mokk mel na tey ñëpp mokk nañ kon bu ko defee gis nga dégg nga noonu cortège baa ngi di waaj kër Cheikh Ibra Fall Babul Mouridina xir yi dégg na mu ko wax nee na ku fa jëkk a gën bëgg gëm ak jëf foo yem yaa fa yemal sa bopp mbokk yi ñu ak yéen ak télévision ma fàtte woon Bichri TV ci gaarub Ndar bi fii keroog bi nga xamante ne ni le le 18 1995 bi fi Serigne Touba jaaree ah keroog na bi fi Serigne Touba jaaree mag ñi fekk suñ ko ne ko Mbàkke te ngaa fekkal jihaar mun leen damay liggéey de Rasulullah alayhi salaatu wasalaam li xidmatil xadimi lil farlu leen ila tanzimi kon mbokk yi leen seen télévision ma Fatihul Bichri TV ak seen euh, mbokkum taalibe bi Serigne Moustapha Ndiaye ñu sant bu baax Cheikh Sidil Mokhtar mu yàgg fi loolu te wér waaye di sant bu baax euh, Alaaji Cheikh Serigne Cheikh Jëmb mu yàgg fi loolu te wér mbokk ak yéen fii ci gaar bi ci Louga ci Bichri TV jërë ngeen Eh, jërë jëf mbokk yi ñun ak fii ci Louga fii ñu nekk nag mooy barab bi nga xamante ni nii fi la sunu sang ba Serigne Touba Xaadimu Rasuul daloon fii la wàcc teg ay bagaasam ci wet ga dañ la fa demal waaye keroog fii la yendu fa tisbaar wax na ne julli na fa tàkkusaan waaye daal fii la ci barab bi garab bi ngeen gis muy xëy gi nga xamante ne nii moom la Serigne Touba yéenal keroog Serigne Touba nag sëñ Moussa Ka daf wax ne ko Mbàkke tarbiya gi xew ci soo gent yaa ko def pajug aaju yaa tax nit ku ñu mës ko fi Touba Kamalu Rasulullah ma mat gu dootu sew matuk kew Kaw lañ jox Serigne Touba Ahmadou fu mu jaar bokk ak fu mu jaarul Ahmadou lu mu teg loxo bokk ak lu mu tegul loxo ca njaareem net lañ ko ba tey mam Cheikh Ibrahima Fall Serigne Touba yëkkati na kaas laaj mag ñi ne leen waaw ana ku ci xam kaas bi li muy jar ci jaba am ñu bëgg a tontu mam Cheikh ne hey ak yéen a doom sama sang bii du laal dara ñu am njëg ne ko Mbàkke ba nga ko laalagul da amoon na njëg waaye bi nga ko laalee tey jii ñàkk na njëg xanaa ay moroom kay dégg ngeen ko ca Gabon ganaar ga doon ba mu yàgg mu làqu ci ginnaaw Serigne Touba Xaadimu Rasuul Serigne Touba mooy kan mooy saakal bakki yu la ji albari on faddalahu ala kasri man xazu maziyaat mbokk yi fii ñu ñëw ak yéen ci Louga keroog 1895 waxtu la waxoon ne xatoon na lool ci sëriñ bi gawar gaa ngi ko gar ànd na moom toppee ko Jolof toppee ko Mbàkke Baari fekk si ko Louga far fas ko yéene yóbbu fee fee ñu wax ca Ndar mbokk yi waaye keroog sëriñ Moussa Ka wax na ne dogoon ko nag dem gi dikk gi mu jaar fii ci Louga jóge fi dem Ndar génn fi jaar Dakar. génn fi dem Mayomba génn fi dem dem Koutumbek daaw mi ñibbi si waat ci waaxu Moussa Siré da kon kon ak doon na saraanu te ñëpp dem ni mbokk yi télévision ma fàtte woon Bichri TV saa su mu ngi am yéene saa su ne ngi am mbégte saa su mi ngi am tawféex di dëkk ak yéen ci di leen yeesal li nga xamante ne ni moom Serigne Touba Khadim Rasoul dimbalee jaam ñi tey ëllëg fii jar na fi fii la yendu du leen ko indi saa su ne wax naa leen ko daañ demal yéen ci pàkk yëpp bu ñu ko may bu ñu ko pàkkeen mayee ñu ñaan El Hadj Cheikh Sidi Moutar mu yàgg fi loolu te kon mbokk yi daañu ànd ak yéen fii si Louga fépp foo xamante ni sëriñ bu jaar na fi fas nañ ko yéen ànd ak yéen tey ak suba ci màggal gi nga xamante ne nii murid yi fa sëriñ Touba jaar samp fa samp fa jàkka murid yi fa sëriñ Touba jaar julli fa ñaari rakka samp nañ fa seen jàkka kon ànd ak leen ak ñun fii ànd mbokk yi mu gën a leer jërë ngeen jëf ko euh, jërë jëf mbokk yi kon ba tey ñu ngi ak yéen fii ci Louga di màggal bis bi fi Serigne Touba jaaroon jëm Ndar 1895 barab bi ngay gis nag nekk sama gannaaw bi Serigne bi ñëwee dal fee ca xay ga ca kàdd ga ci barab bi la ñëw teg fii bagaasam dénk ko ñenn ci mag ñi jox leen digal leen nañ ko fi nekk gaar baa ngi ci wetam waaye nu fekk kenn rek ci bokk taalibe yi sëriñ Xaadim Seck xasaayit mu war ñoo waxal tuuti rek ci cosaan li nga xamante ne ni mooy cosaanal bis bi sëriñ Xaadim nu euh, fekk si la fii ci bis bi ngeen di màggal bis bu tedd bi nga xamante ne sëriñ bi jaaroon na fi mu doon jamono bu xat mu doon jamono boo xamante ne nii képp koo xamante ne déggoon nga ne sëriñ sa bokk bu mel ne sëriñ doon dem wuyu ji tubaab ba rek sa xel dalul woon tey jii nag keroog bisum njàqare la woon waaye tey jii bisub cant la bisum mbégte la bisub tawfeex la nga ne fii nag ah, waaw kon ñu ngi nuyu di jiital ci nuyo bi ak cant bi xalifa général Cheikh Sidi Mokhtar yàlla fi yàgg te wér lool ak njabootu Serigne Touba gi di ko noonu la nga koy xalifa maam Cheikh Rahim Fall Serigne Cheikh Jëmu ak Cheikh Mouhamadan Mourtala mi nga xam ni moo nekk fii ci dëkk bi mat sëkk am Serigne Touba. ndax keroog la way juróom bu tedd wa waxoon moo am seex Mortada mi mu ñëwee fii am fi ak makan mu yaatu ni waa fexe leen ba defar ko bu noppee naa leen andil am sëñ Tuubaa loolu la fi nekke zuriyatan tayyibatan tu jaddi ndax jane benn Moustapha taj taxidu jooju Serigne di wax moom la sëñ Mahamadan nekk fii ak mbooleem ahlu Mbàkke gépp fii nag ni ko waxee cosaanam lu wér la ndax fii la sëñ Tuubaa ñëwoon ci suuf kàdd gi jóge jeewal egsi fi ci suba gu teel wax na ni sax fii jullee suba muy wis wisal wu sew mu toog fii ci kàdd gi mag ñi nekkoon lu gépp fekk si ko fii taxaw fii Cheikh Mouhamadul Kabir Mbay ci la ak mbooleem kilifa yi sëñ Masamba a soxna ci ak sunu ma waa coxna yi ci lanu ak sëñ Abdou Seck di sama maam ci la ñëpp taxaw fii jaayanteeg sëñ Tuubaa jaayanteem bu rëy ba ni sëriñ bi yow kat ngay dem sunu bakkan du ko fekke xanaa ñu ànd ak yow xeex tubaab bi ba jeex nga soog a dem wala tubaab bi ñu rey ko doo dem sëñ bi ni leen waaye li ngeen di xeexee lu mu doon ñu ne ko sunu yat yi ak sunu jaas yi la ñuy xeex ak tubaab bi sëñ Tuubaa ni leen yéen ku yor fetal nu muy xeex ku jaasi ñu ne ko kon ñu dem jënd ay ngànnaay ni tubaab bi suñu bàyyi leen déet ki ngay xeexal nu mu lay jaayee ngànnaay gu baax toog leen ma añ ma dem liggéey bi su ma dikkee añ sama digganteeg tubaab bi wàllu dëgëñ la dana mokk te kenn dégg kàndang loolu moo am keroog sëñ Tuubaa jikki toog fee ca xar ngeen nekkoon léegi woo sëñ Mamour Samb bu kamit ak sëñ Baara Gaye bu njoomeen ni leen sama wax na tëdd yii ay alxuraan a ci nekk ak ay fulku masawum ak tagg yi ma tagg yonent bi salaa salaam tubaab bi sobe la fexe leen ba bu mu ko laal ñu yëkkati ko fee tegal ko ko fii moom lan liggéey ba mel ni ñu tuddi ko tubaal lansaar ñu tuddi ko tubaal lansaar fee lan tegoon wax na yi dañ tubaa noppi waaj ak mag ñi ah, ah, baab bi sëñ tubaa jaar nii porte bii jaar xaar gi taxaw fii sëñ yéeg bi mu yéegee mu yéeg ci première ago bi la yéeg ma ngi yéeg ca troisième ba gouverneur bi ko doon jël si wooteen ndar xamal xamal xamal seefam bi ni ko mbooloo mi yéeg saxaari saxaar gat mbooloo mu takkulan mu ne ko fexeel ba bun ñëw tubaab bi ni mag ñi léegi da ngeen xaar ñu jekki-jekkal daal di wekki wagoo wi bi wekkee wago wi daal di taal mag ñi ñoom booba seen xel yëgul fenn fi ci wàllu zaahir waaye feetal na baatin saxaar gi dem ba sori ba weesu sàkkal ma ngi neen daanaka toll na sàkkal ñu déglu déggu njëriñ ñu ne ah waaw lu xew sëñ Mamour Samb ni ni sëriñ Bara Gaye Ndiobène daa mel ne kat tubaab bi warati na ñoom ñett ñu wàcc lonkante seen baaraamu sànqale ñi def ñukk-ñukk bu xaw a dëgër daw ba ba daw xaw a sori def nañ seen yëfi murit yoo xam ni sëñ Tuubaa rek ko xam ndax ñoom seen bopp ñoo njëkk saxaar gi ndar jiitu na saxaar gi ndar lu tolloog waxtu sëñ Tuubaa soog a yegsi bi sëñ Tuubaa xool gis leen daal di jël ka xaalam nga taf ci gi ñoom daal di muuñ ñu leen li nga def lu mu doon ñu ne ko Mbàkke fi ñu jaar xam nga ko ump waaye ci li wér te moo wér mooy alu Badar yi gunge woon sëñ Tuubaa jeewal ba egsi ci gaar bi dañ di sëñ xaj ñu ci saxaar gi waaye daan dem ndar wax nañ ni keroog ñoom ñoo jël mag ñi yóbbaale leen loole moom la ñuy màggal nii muy 12 août ndax Sëñ Tuubaa waxoon na ni Louga fàttewuma leen loolu ñun xam nañ ci dara ndax fii daara alxuraan la xale yi nga gis taxaw ñëpp fii lay nekk di jànge maa leen di jàngal subaa subaa jàmm la bis mag bi ñoom war nañ cee def ab conférence sax war a tari kon fi mu tegoon waxane mi yaakaar ji mi ngi jebbi ndax xale yoo xam si dañ leen fi yar kenn amagu ci fukkaat ñu ngi fi di jàng alxuraan ji mucc ayib ci ndigalal sëñ Saliou ndax sëñ Saliou moo ne ñu woon ci Touba daara jii fi sëñ Touba tegoon wax ne fexe ne ba def ko daara waaye nee ko def daara ju mucc ayib su ngeen fexee ba def ko daara te xale yi yalwaaniwul tumurankewul seen aajo seen aajo dana faju daara jooju nag suba bokk na ci xeer wi ñuy teg suba nan ko teg ci ndigalu sëñ Mouhamadane bu ko defee daara jooju ñu ngi ci woo àdduna bépp ngeen ñu jàpp ci mu mucc ayib comme ni ko sëñ Saliou waxee woon ñu ngi leen di siyaare yéen bu baax baax ñu ngi leen di ñaanal seen télévision bi ngeen am ci lu kawe seen jot ak seen kilifa yëpp ñu ngi ziar baax a baax jërë ngeen jëf. Eh, jërëjëf moo doonoon eh, ak Serigne Khadim Seck xasaayit Serigne Khadim Seck eh, Serigne Daara Serigne Khadim Seck sopp na bi Serigne Khadim sekk membre nag ci commission bi nga xamante ni nii ñooy taxawal bisu tedd bi bisu mag bi nga xamante ne nii commission culturelle bi bisu mag bi nga xamante ne dañ ciy dañ ci fàttaliku bisu teew ko tedd ka fii ci barab bi. taxawaay bu ko tëdd ci barab bi jëf jëf ju rafet ja nga dégg ko noonu ahlu badri gunge ko mag ñi di ko gunge tubaab bi def ci lam ci nar ñu dem dellusiwaat la ma waxoon rek isa sakatu ko saalikal mabita wa saalikal amina wa sabot kon bu ko defee mbokk yi da ngeen ànd ak ñun rek noo ngi yéen fii ci Louga Mafatihul Bichri TV lu tay du sonn lu ngeen bëgg rek mu nekk ceeg yéen jërë ngeen jëf